asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah vendredi 27 septembre 2019 ñu ñëw ak yéen ci yëglekaay yi mu mel ni ki nag yëglekaay yi bi ak fi nga xam ne moo di leewtoo point net bu fekkente ne nag yëglekaay bii di sunu làmb la moom li leer ba leer daal tey que xëy séqal waxtaan moo di Sa Thiès bi nga xam ne nii day moo di doomi Double Less di rakki Balla Gaye numéro 2 saa nag fi nekk nii daal la muy leeral te di ko xamal ñi nga xam ne ñoom la nekkal wala ñi nga xam ne nii daal ñu ngi wax ma leen fi mu nekk nii jàpp leen na magum yàlla am jëmm laa majeur moom def naa ko te lépp li nga xam ne ni daal maa ngi koy def xam naa ko te it sax xam naa man Sa Thiès la nga xam ne nii war naa koo def ñu ne ko waa léegi li nga war a def ay combat ñan nga yaakaar ne ñoom nga war a bëreel mu ne bu dee Garga Mbossé wala Yékini Junior man Sa Thiès pare naa ngir fas yéene defante ak ñoom bëreeg ñoom comme ci mën a doon rek ci ñaar ñu ñu ma lim boo ñëwee moom dañuy bëre ñu ne ko yàgg rëg-rëg nag mu ne rëg-rëg moom jarul sax mot lay wax ndax fi mu nekk nii leer ba leer day pareeguma ngir bëre ak moom maanaam daal fi mu nekk nii moom la mu jàpp mooy rëg bokkagul ci ay palaam jamono ji saacee sa xëy di wax loolu ci yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu làmb waaye li nga xam ne nag mooy école du balees bañ ko ca waxee ak coow yi nga xam ne jóg na ci rawatina jóge ci kii nga xam ne moo di ba dafay ma nga xam ne mu leen di tàggat saa Thiès daal la mu xam le daal nen nee na lenn doo nga am li leer ba leer école de li duuba lees moom aw tura fa ne waaye la neen nekku fa loolu mooy waxi kii nga xam ne nii moom moo di Sa tey ci yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu làmb waaye keneen koo xam ne nii wala leneen loo xam ne nii day ñëw nañ ci tey yëglikaay bi ñëw ci mu di ab bilan école de lutte Boy Niang yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu làmb xëy tey ñëw ci neuf combats lañ jot a bëre am ca sept victoire ak ñaari défaite moo tax yëglikaay bi jàpp na ne li leer ba leer dey booy Niang deux moom mu nga ca suuf ca teer maanaam daal moom daanu na ca suuf waaye terewul nag école ba moom mu ngay jëg di jéem a góorgóorlu di def ay avancé yëglikaay bi du sunu làmb xëy tey ñëw wax ñu ko donte seen tête de file doxlewul moom terewul à écrit ba moom jàpp nañ ne ak dox am na ca par rapport ak la ñu am ci ay combat moo tax yëglikaay bi jàpp na ne day li leer ba leer day performance ba mu ba ñu amoon ci 2007 2017 jàpp 2018 moo gën fuuf bii ñu am ci 2019 bii ñu génne waaye booy ñag moom danañ feet ga moo ko yàq ndax nag kombaam da koo ñàkk keneen koo xam ne moom ca école ba mu ngay wane boppam di émercé di dem moom mooy garaam bañik du te ñu gën koo xam ci turu kalmundur moom daal li leer ba le fi mu nekk ni day dafa ni day sunu lam ne na futur leader u école Boy Niang moom la wala moom lay xeeñ ndax ñaari combat mu jongante yépp da koo moom mi nga xam ne moo di garaam bañik di kalmu nduur zambala moom sa saison balance ba nga xam ne nii def na ko yëglikaay bi ñëw ca mu mel ni nag saison balance la boo xam ne day bu ñu forcé la wala buñ ko forcé waaye kii nga xam ne nii day moo di Cisa ca école ba la ne moom nag gisee su ko ak ay bët wala sax boog boo bëggee dégg-dégg ndax réerut ndax nag fi mu nekk gis ko ci làmb ji mu bëre jafe na lool waaye am na fa ab xale boo xam ne day moom itam xaw naa bet waa école ba ci ba nga xam ne ni am na ko te résultat bu neef muy njalabaan waaye am na fa ay xale yoo xam ne moom ensiri nañ seen ab liggéey bokk na ca li coor bi nga xam ne ni si école bala nekk ak ki nga xam ne mooy bébé Modou Lo Boy Sabi ak masàllaa ñoom da ci forme bu wóor a wóor a la ñu nekk ba wane seen bopp waaye ki nga xam ne nii dey moom moo di wala ñi nga xam ne ñoo di ay promoteurs yi lañu jot a tëgg yëglikaay bi ñëw na ci muy Baye Ndiaye jéy seen ak ki nga xam ne nii day moom moo di Sidi Jaxate ñooñu ñooy promoteurs yi nga xam ne parce que boo xoolee ren ñoo jot a tëgg école dalit Boy Niang Cheikh Ndiaye ma nga xam ne nag moo leen di tàggat moom jàpp na ne day fi mu nekk ni li leer ba leer dal xale yi moom ah def nañ lépp li nga xam ne nii day moom la ñu mënoon maanaam daal joxe nañ bu baax a baax a baax a baax ki nga xam ne nag moom wala li nga xam ne moom dafay amoon di ab combat diggante Eumeu Sène ak ki nga xam ne moo di Modou kaw ba nga xam ne amoon na ca nag yëglikaay bi da cee xëy ñëw nee na fi mu nekk nii day kaw ba fi mu nekk nii nag dafa mel ni moo tax nag gars yi bëgg a jël nag ay mesures ci wàllum prothèse ba nga xam ne yu mel noonu ñu man koo moytu di ay dansé suñu làmb xëy tey ñëw dinu ko wax waaye leneen moo xam ne yëglikaay bi xëy na ñëw ci wax ñu ko mooy kii nga xam ne nii day moo di Luc Nicolaï sunu laam ne nag li leer ba leer nag na fan yii day ca Touba Mbàkke ziyaare nga xam ne nii day moom moo di sëriñam di sëñ Abdou Karim Mbàkke yëglikaay bi xëy ñëw ñu lu mel ni ki noonu waaye loo xam ne day yëglikaay bi ñëw na ci muy coow li nga xam ne ni day am na fa nga xam ne mooy ca Kaolack mu ki nag bira seen moom ña nga xam ne ñii day ñoo taxaw temm daal ngir ne nag dañ ko fa jële wàcce ko la ko waral nag mooy yorin gu bon ga nga xam ne ñoom dañoo jàpp ne moom lay doxale li nga xam ne mooy CRC ba nga xam ne moo nekk fa nga xam ne mooy cere région de moo tax nag ki nga xam ne nii day moo di Zal mbay di président écrit Thiès mbooloo nekk ca Thiès moom Zal li mu xamle daal mooy nee li leer ba leer day jàppal assemblée générale moom CRC yi dañ ko war di def di jox nit ci ay information yu leer a leer leneen loo xam ne moom jàpp na ne jàppes na ne waras na koy def muy lu ñuy laaj jàppal yëglikaay bi xëy nañu wan ministre de sport ak ki nga xam ne mooy docteur Alioune Sarr mel ni ki nag fi mu nekk nii wàllum finance ca CNC moom fi mu nekk nii waras na koo gën di leeral di ko teg ci aw yoon moo tax sax ñu jàpp ne kon commissaire au compte moom manta ñàkk faw daal dafa war a am ki nga xam ne ni moom am na lu mu am ci saison bi ñu génn ci wàllum làmb simple ji moo di ngel jon yëglikaay bi xëy na ñëw ci moom ci li nga xam ne nii day cinq jours na xam ne nii disputé na ko daanam daal jongante na ko ci saison bi nga xam ne moo jeex am na ci tolloog lu tolloog ñeenti final gagné lu toll ci un million huit bi di sunu làmb xëy tey ñëw wax ñu ci ki nga xam ne moom moo di ngel jon ci résultat yooyu nga xam ne nii daal moom def na ko ci li nga xam ne moo di bi nga xam ne moom moo jeex waaye li leer ba leer rek jàpp leen Leewtoo point net ak Leewtoo TV bu fa demee daal fekk nañ fa ka nga xam ne nii day moom moo di ca Leewtoo TV moo di Iba Kane mu ngay leeral nag ca wax ja nga xam ne seqoon na kook lanjang la ko lanjang wax nee na lanjang moo moo ko wax ne day bu maanaam bu leen fay xaas bu ko jar mu wañ loxo Eumeu Sène mu jël Balla Gaye numéro 2 waaye ba tey ci Leewtoo TV itam li leer ba leer wala Leewtoo point net mooy ki nga xam ne moo di jëy seen des promoteur moom mu nga ca réew tubaab ya maanaam daal Europe di def ab tournée Leewtoo point net moo ñu xëy tey xamal ñu ko waaye li leer ba leer tey te ñu war koo jàpp te bañati koo fàtte mooy 27 septembre ji 2019 ji jumaay ju mag ji ci ndakaaru tey ñu koy inauguré ci nag njiital Serigne Mountakha Mbacké muy xalifaab Cheikh Ahmadou Bamba ñu koy ñanal yàlla mu yàgg fi lool te wër Mbacké ndax nag man ni ma tudde mun Mountakha mooy bari jàmm lool rafet xol lool te itam boo ko séenee rek wala boo jàkkaarloog moom la ngay njëkk a gis mooy kanam gu leer ak ay te yaakaar naa loolu mbégte la yaakaar naa yàgg maar tubaab ya jàppuñ sëñ bamb indi ko ndakaaru ne dañ ko yóbbu gabon ngir noti ko yaakaar naa tey daa mel ni kon yàlla wan na leen ne lu dul yàlla neen la te dëgg rek muy mucc kon daal la ma waxoon lay waxaat magi réew mi moo xam murit yàlla tiijaan ya xaadir ya laayeen ya ñaseen yaag cene ba kum ci mën a doon a kunti yu ba ca chrétien ya yàlla nañu yàlla fayal suñ magi réew yi barke yonente bi sallallahu alayhi wa yàgg maar nag bu nu paree xam nga fu ñuy jubaleem masaalikul jinaan du mën a ñàkk mbokk waa Leewtoo TV ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant Babacar ngeen àndoon si revue de l'arène bi nu ànd ak yéen si jàngatu arène bi maa ngi lay nuyu di la ziar di la wax nag yaa ngi waajal inauguration bi noo ngi waajal maa ngi lay delloo ziar di la ñaanal jàmm di ko sàkku ci yow ah tey moom vendredi le 27 septembre comme ñu ko xamee ubbiteel Masaalikul Jinaan di jumaay ju mag joo xam ne ju mag la ju nga xam ne du ma ne sax murit yi rek waaye jullit yi ñoo ko def pour ndakaaru wala boo pour àddina bi yëpp parce que néegu bi yàlla la boo xam ne nii donte ci eh, maanaam mën nañ ne ci njiital xalif général murit yi la amee waaye defe naa néegu yàlla bu toll ne du pour benn communauté wala benn nagam mais pour musulman monde bi yëpp la parce que tamit vraiment ki nga xam ne moo tax ñu def ko fa muy Cheikh Ahmadou Bamba wala mu amee ci ndigalam li mu doon xeexal mooy l'islam rek mësut a xeex lu génn lislaam te te buñ ne lislaam nag képp kuy wax ashadu an la ilaha illallah wa ashadu an muhammad rasulullah yaa ngi ce biir kon mbir mi daal du leen di kenn mais lépp ñëpp la lu nay ku ne da caane kon ndey kumba ñu ngi waajal tey ubbiteel Masaalikul Jinaan ñun waa Sénégal yëpp mais sax waa àddina bi laay wax waaw waa Leewtoo di ngi préparé Babacar loolu du mën a ñàkk Babacar nag ñu ñëw si jàngatu journaux yi euh, ñu ñëw ak sunu lamb Leewtoo TV ak Leewtoo point net ñu commencé ak sunu lamb sunu lamb tey nag bu mu joxee kàddu semaine bi passé euh, ki nga xam ne mooy Double Less mu wax si ñaar doom yooyu noonu Balla Gaye ak Sa Thiès tey nag dafa mel ni tey Sa ki nga xam ni mooy doom te nekk si école de lutte moom dafa mel dafa génn rek ba tontu ki nga xam ne mooy papaam nee na daal il est assez euh, responsable te mën na mën a del boppam kenn du ko décider nee na pare nag pour bu rek Garga wala Yékini Junior Babacar lu muy muy kàddu yoo xam ne xaw na yéeme tuuti si si nga xam ni jëmale ko Sathies jëmale ko si papaam. waaw man de Ndeye Coumba bu fekkente ne moom Sathies comme noonu ko journal bi bindee kani moom. mën na demal sax boppam ak yu mel ni ki noonu bu dee loolu noonu la ko waxee moom pour man erreur am na ci wax ji parce que lu tax mooy àddina bi ñu nekk amul ku fiy dund koo xam ne nii lépp looy def lu ma mënta doon doo ci waxtaan ak ñi ngi ci war a waxtaanal bu ñu nee waxtaan nag rawatina say kilifa yaa ngi dégg kilifa nag fa muy njëkkee mooy wayjur te li ñu man boog li ma jàpp mooy Sa jox na cëram ay wayjuram loolu laa yaakaar ba ba may gis leneen parce que gisu gisuñu xëy na foo xam ne nii wane na ne joxut ay wayjuram cëram wala boog ñun xamuñu ko ci xamuñu ci moom loolu mais nag am na loo xam ne nii tey suñ ko déggee day xaw a kii tuuti day xaw a ñagas parce que itam lu mënta xew mooy carrière sportive lay def carrière sportif nag li ko wër lépp environnement bi mu nekk ñëpp defe naa dañ ko def ba bàyyi moo xam dubalees mi nga xam mooy way juróom yaakaar naa ne am na lu mu def ci làmb ba tax tey ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo di ak njabootam ñëw nekk ci làmb am lu ñu ci wane bu fekkente ne nii tamit ka nga xam ne nii moom moo di magam Balla Gaye numéro 2 la ba boo duggee biir waaye wala école de dubalees ba nga xam ne sax fa lañ fa la nekk li ko war a daal lépp làmb la lépp tamit ñu ko war a mën a xelal la. waaw ba si Balla Gaye numéro un ñoom ñoom père Balla Gaye numéro un parce que ñoo ñëpp ci ci ci bi lañ bokk kon yaakaar naa fi mu nekk nii daal euh, xel sa xelum kese euh, moom wóorul parce que dañ ne boo wéetee yow kese wala nga wéetee sa xel jëf li nga war a def bis boo juumee maanaam di nga def maanaam di nga ci wet dégâts ba dina bëri waaye nag boo jëlee xalaatu ñëpp ba pare doog a jëf boo juumee dootul metti te itam dootoo ci wet moo tax lu mu mën a doon rek si àddina kenn mënut lépp kenn xamul lépp kenn mënta defal boppam lépp mais lu mën doon itam nit ñi nga ci war a mën a àndal dox ci ak ñoom wax ci ak ñoom te yaakaar naa Sa loolu moom moo nekk ci boppam laa foog quoi pour man noo gisee li mu wax ne écurie Double Less bi nga xam ne moom fa la nekk nee na existé wul tout rek moo fa nekk mais dara amu fa waaw a ah, moom de luñ li ñu xam ñun bañ koy xam muy débuté carrière am école de Double Less lañ ko xamee mu ciy bëree ñu ko fay tàggate yaakaar naa ne euh, ba mu commencer ci petit combat ba ni mu ñëwte si grand komba école de Double Less la ñu xam mu fay bëree bu demee nag ba na xëy na dara nekku fa bu fekkente ne da koo teg ci lu nga xam ne nii maanaam ah ci waxu lu leer la loola encadrement ba ak ñi yor écrit ba ñoo ci am part de responsabilité mais bu fekkee tamit da koo teg ci wàllum tontonte kese nii nii nii yaa ngi dégg ngir bëgg a sànnente xeret bu keroogee dañ naan loolu pour man warul mën a nekk parce que nag tak lu mënta xew rek école ba moom fa lañ ko tàggate ci li ñu xam ñun wax dëgg yàlla Sa Thiès bu ñu waxee école de Double Less la ñuy wax Balla Gaye ñu ne école de lutte Balla Gaye yaa ngi ku ne am nga foo bokk kon moom damaa yaakaar ne buñ bu ne école ba tey tur doo nga fa ne mais dara newu fa moom am na ci part responsabilité bu fa dara nekkatul ndax li tax mooy mën nañ ne mooy tête a file ba te itam lam fa fayeku ci kase ci turu écrit ba benn mbër fayeku gu benn mbër amagu ko fa ci kase kon yaakaar naa ne tey moom bu école ba demee ba nar a raaf ba tur rek war faa nekk moom Sa Thiès warut nangu sax loolu war na fexe rayante ba école ba di exister ay champion di fa génn pour man Babacar loolu am na solo nuy wax nag ne keroog si AG wu euh, CNG bi CNG jël na ay matuwaay yoo xam ne bii euh, pour saison bii di ñëw la nee ñu est-ce que tey jii kaw bi nga xam ne moom la ñuy def Eumeu Sène est que loolu taxul CNG fas yéene jël ay matuwaay pour gën a protéger ñi nga xam ñoom ñooy bëre. waaw waaw loolu de mën na nekk parce que àddina moom lu ñuy gën di avancer rek ndey kumba xalaat yi di gën a génn xam nga gis-gis yi di gën a génn bu ko defee nag loolu dinañu permettre ba nga xam ne buñ mënee buñ jógee si A jéem a dem ci B B C ba ba ñuy dem ci Z yaa ngi dégg kon yaakaar naa loolu itam lu ñu war a jàngat la parce que kaw boobu moom ak lu mënte xew mënoon na def dégâts bu doy doy waar mais nag yàlla mi nga xam ne moom mooy dogal wis na ci ndox ba mujjewul mel nañ ko doon xaare yaa ngi dégg kon loolu tamit war na tax seen see def ci jàngat comme ni ñu defee tey protestant parce que loolu lépp pour aar intégrité physique gu mbër yi la loolu tamit war nañ ci xool ci côté dóor yeeg yooyu bu fekkee mën nañu indi gant boo xam ne mën na maaseeg man ñun daal li ñuy bañ def loo nga xam ne nii boo dana dénaturer làmb mais lépp loo xam ne bu ñu ko defee dana adapté làmb te dana aar mbër mi aar ñi nga xam ñoom ñooy waa làmb su keroogee ñun dañ ciy d'accord di leen ñaanal loolu tamit mu nekk loo xam ne luy réussir lay doon daal Babacar ñu dem nag si écodolique Boy Niang bi nga xam ne ni suñu laam tey def na tey seen bilan nee ñu chef de file bi nga xam ne mooy Boy Niang 2 malgré que daanu na la de daan daanu ko waaye daal écurie bi daal mu ngi dem si kaw parce que sept com sept victoire la ñu am pour seulement deux défaites Babacar. waaw moom Boy Niang moom dafa ñàkk combat moom mooy tête de file ba mu ngay dox comme ni ñu ko waxee sept combat victoire. ah ñu leen ci félicité ci loolu nga xam ne résultat la waaye itam si benn côté man mën naa ne sax euh, duma ko jàppe résultat bu positif en 100 pour cent parce que lu tax mooy mbër yi bëriwuñu parce que sept combat moom vraiment donte ndam yi bëri na mais euh, waa sept victoire sept neuf combat du moins sept victoire deux fet loolu d'accord baax na si bilan mais nag bu ñu sañoon écrit yi gën a mbër yi gën a bëree mu gën a bëree noonu xam nga tey bu ñu noon am nañ 40 combat exemple wala 30 combat écrit bi dina gën tourné te boo xoolee ren da ngay xool loolu écrit yëpp la parce que li ñu mbëri li ñu bëri bariwul boo xoolee lii ñëw par da ngay ay boo xoolee ñi ci bëree ba bëri du passé ay fin combat affaire yooyu bu bëree ba bëri loolu tamit vraiment lu jara xoolaat la am nañ am na fa xale yoo xam ne nag ñu ngay wane seen bopp ci écrit boobu ndax ku mel ni euh, ki nga xam ne moom mooy euh, grand bañik kalmandour xale la boo xam ne ren defe naa ñëw na ak ñaari combat gagné yëpp kon moom itam war nañ ko bàyyi xel zambala itam ku ñu war a bàyyi xel la donte ren bëriwul itam mbër la Ziza gis gis nañ ko gis ba mu daanoo ndar ba ko daam seen daane yaakaar naa gisaatuñ ko ak yeneen xale yoo xam ne tamit ñoo nga fa di wane seen bopp kon daal école Boy Niang ah ñu leen di féliciter ci ndam loolu nga xam ne nii donte tête de file bi ñàkk na mais ñoom xale itam ñu ngay jéem a yëkkati ba loolu nag mooy sport Babacar suñu jugee nag suñu laam nañu dem si Leewtoo point net ñi nga xamal ni que kii nga xam ne mooy Dieye euh, Dieye Sène Dieye production mi ngi def tournée européenne démb la jël roplaan bi dem fi nga xam ne mooy Europe. li nga xam aussi journal bi kii di Ambroise Sarr toogoon na 4 mois nekkul Sénégal yëbbisi na Suisse la jógee doon def ay doon xool daal yaramam yëbbisi na euh, depuis semaine dernière donc ñoom ñaar ñëpp kii dem na kii ñëw na Babacar. am na solo ah, Ambroise suñu papa ñu koy ñaanal yàlla gën a wéral cëram. barke yonent bi sallallahu alayhi wa waaye defal ko bépp doomu aadama nga xam ne wéradi nga waaw loolu moom mooy lam solo parce que moom mooy entraîneur nationalu Sénégal ci wàllum làmba ki nga xam ne mooy jéy tamit di promoteur moom itam ñu xëy jàng comme kan ni moom dem na fi nga xam ne mooy Europe ci ay tournée yoo xam mu ngi ko fay amal ci ay réew yu wute ci biir Europe ah ñu ko ñaan mu dem si jàmm ñëw si jàmm rek fekkaat réew mi si jàmm loolu moom lu am am solo parce que àddina moom ah fekk yaa ngi gën di génne di dox rek di gën a découvrir di gën a jàng parce que àddina du jeex maanaam njàng la moo xam ne nii du jeex saa yoo xëyee rek am na loo war a mën a jàng te nag ñu am na loo xam ne soo ko soxlaa moom du fi nga nekk kese kese nga ko mën a amee mais il faut nga génn am foo dem am foo dugg pour mën a am yooyu kon ci ñu koy nuyu di ko ziar. d'accord Babacar ñu jeexaloon nag ak Leewtoo TV démb yaa ngi woon si présentation bu amoon na euh, ja jàmmalaay Babacar Marie ñëwoon nañ ñëpp ku nekk daal wax nga génne nga fa daal ay kàddu. tëkkoonte ba moom metti woon na mais ñuy nuyu promoteur bi nga xam ne moom mooy le nouveau promoteur Mbaye Yékini nekkoon soppeeb Yaxya Jóob Yékini yaa ngi dégg am sañu ñu koy jaawale moom ci muróowaay moom nag moo ñëw ren bees ci làmb lit avec frappe yaa ngi dégg indi ay xale yoo xam ne itam ay espoir yu ñuy yaakaar lañ si làmb ëllëg parce que yaakaar naa bu ñu ne la grand combat bi naa loolu lu war a mën a neex la ay xale lañ waaye itam làmb bàyyi na leen xel ki nga xam ne mooy combat spécial bi di Ronaldinho mu a bëre lool ak ki nga xam ne moom mooy Clémenceau yaa ngi dégg bu Grand Médine muy làmb yoo xam ne daal taxawal na ko fas yéene itam dugal ci ay xale yoo xam ne ah xalaat naa daal bu saison bi ubbee moom tamit dina indi lu neexat neex kon ñu koy ñaanal yàlla rek moom mbay yéegi ne ak bépp promoteur loolu ñu réussir li nga xam ne moom la ñu sumb pour bëgg tëgg ren jox ko amateuru làmb yi Babacar loolu am na solo nag si kàddu yooyu leen di tàggoo leen jox uh, dig daje lundi incha allah mais balaa boobu may nuy sama yaay mère Sow du nuyu sama doom Mohamed Diouf di nuyu Astan Dine DG Brahma depuis Italie Chérie Khadija Diallo depuis unité 26. aussi samay bourchou mi Mam Diara Penda bébé Rokaya bébé uh, bébé uh, Junior du nuyu Eva Diallo yaa ngi si biir du nuyu waa Passé Assini yëpp 1 ba 26 Babacar du nuyu aussi Dadi yaa ngi si biir. am na solo Dadi ñu koy ziara du nuyu parcelle bi yëpp tamit comme ni nga wax 1 ba 26 comme fa nga yeewoo yaa ngi dégg mais di nuyu internautes yi di nuyu tamit sama benn rakk bu nga xam ne ñoo bokk benn papa ñu koy wax Ibrahima Diom di étudiant nekk fi nga xam ne mooy iman fa lay jàngi démb la doon fêté anniversaire am 26 septembre mu koy ñaanal yàlla rek gudd fan ak wér-gu-yaram loolu mu séntu ci jàngam itam yàlla na ko ko yàlla defal barke yonente bi sallallahu alayhi wasallam defal ko kii bépp doomu bu xam ne yaa ngi yëngu ci dara parce que nga euh, rakk joo xam ne jox na la teg la fi la war a teg defe naa lu neex la di ñu bokk benn papa Ibrahima Diom ma koy nuyuwaat encore une fois di ci profité di nuyu sama famille bi yëpp. fàttewuma leen sama waa kër papa yi Fass ma bàyyi limaan jom ak fam yëpp maa ngi leen di nuyu waa Bawol tamit waa ak yaay maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di ñaanal ñëpp jàmm mais tam di bi am na solo Baye Sall na yàlla yokk sa kattan barke yonent bi sallallahu alayhi sa ay cir di nuyu ñëpp soppee Babacar yi fu ñu mën a ne rek maa leen di nuyu di leen ziar xam nga ñoom Mamadou Gueye Ousmane Diop dinaa la jox yére bi Abdoulaye Mbaye gaa yëpp Mbacke Diagne internaute Ndiaye nuyu naa ñëpp ñanal ñëpp jàmm yàggamaar du ma ko fàtte doomu ndeyu Kempes série ami silan ah. kenn du yàgg mooy filmalu leer loolu waaye ki nga xam ne mooy Moussa mooy dagg montage yu rafet yooyu Moussa Fall di nuyu Leewtoo bi yëpp di ci jiital nag Thialis Faye Pape Thialis ah série Amina ak Moussa jaw wala tonton Diaw série waaw di di nuyu madame jaw rek kon noonu lay demee di ñaanal ñëpp jàmm mais di waxaat rek jumaay ji nga xam moom la ñu ubbi tey moom macha allah sant yàlla alhamdulilah Sénégal gii daal ndey Kumba Fall yàlla na fi jàmm sax te yàgg fi lool barke yonent bi sallallahu alayhi mais yàlla na wasaaru ci àddina bi. amin Babacar ba leen allah.